ci sunu téere boobu di al muxtasar fi tafsir al quran mu mel ni sunu jataay bi daanu dikk ci tawfiqu borom bi jalla wa ala ci saar wi nga xam ni mooy suuratu takaathur mooy saar woo xam ni boo dee xool ci ni ñu toftalee kaamil bi mi ngi toll ci limu téeméer ak ñaar téeméer ak ñaar moom suratu takasur nag nee na màkki yàlla maanaam mi ngi bokk ci saar yi nga xam ni nee na ñu màkka la ñu wàcc min maqasidi sura jubluwaayi saar wi تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب mu ne saar la woo xam ni day fàttali ñi nga xam ni dañuy ëppalante ak yittewoo mbiri àdduna képp di leen fàttalee la nga xam ni mooy bàmmeel ak it la nga xam ni mooy àtte ba ëllëg ndax yittewoo gu ëpp googee puukarewoo googee nga xam ni ñu ngi koy puukarewoo ca am am ya di ko ëppalante loola kat da leen di nax ci ñu waajal ya nga xam ni moo leen di xaar lu deme ni ki biir bàmmeel lan fay fekk waaye lu deme ni ki bis pénc ba keroog bu ñu lay màndaxeel di la peeseel say jëf ak yu ni demee mu ne at tafsir pirimi ألهاكم التكاثر شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله من يتلنا لين na leen yéen nit أم أم puukarewu ci di puukare woo am am njaboot gu bari poñeti àdduna koom-koomi àdduna waaw yitteel na leen ci kaw topp seen boroom àdduna gi li fi ne ci ay xéewal dafa doon loo xam ni xéewal la bu borom bi jàlla waala def doomu aadama war caa jariñu ci jëfandikoo ko kon xéewalu àdduna gi yépp ay jumtuwaay la maanaam ay moyen la waaye du objectif nun nag danoo jaawale moyen ak objectif dañoo faf jël la nga xam ni mooy jumtuwaay ba muy moyen bi ngay jaar waaye la ngay utilise ñun loola lañ def objectif kon loola yëkkati nañ ko walis topp sunu boroom mu topp ci ginnaaw àdduna mu yitteel ñu ku ne di fexe noo gën a barilee ci sa kaw moroom ku ne di wone léegoo léeg sax même bu nekkul ak yow dangay gis ñu koy jéem a wone moo tax ngay gis waajoo xam ni day dem ci mbir yooyu nga xam ne ay mbiri jaaxaan la wala boog mu doon sax ay xew yu demee noonu mu génnee xaalis di ko xëpp nit di ko ko sotti wala muy batare loolu ngeen di wax batare loola pour wane na lan la pour wane ne amna ba wara mëna joxe lu toll nii kon bari léna gis nga lolé lépp ay xeetu lan la ay xeetu puukare képp la ma ay xeetu puukare képp la mu ne xatta zurtumul maqabir xatta muttum wa daxaltum quburakum co loola nag ngeen di nekk gi puukarewu gi ëppalante gi topp àdduna gi poñetu àdduna dajale gu bari gën a bari lente gis nga ak jaay ndaanaan li ñi di wax jaay taar ci yooyu rek ngeen di nekk ba keroog ngeen di dee ñu daldi leen di dugal ci seen biir bàmmeel bàmmeel boo fa ñëwee loo fa defuloon doo fekk fekk na yow sa doole sa xam-xam sa jeunesse sa wér-gi-yaram sa waxtu lépp def nga ko ci àdduna lépp jox nga ko àdduna motax nit ki dafa war di bàyyi xel boppam ca la koy jariñ mu fexe jël dooleem ndawam xam-xamam waxtoom wér-gi-yaramam def ko ca la am jëriñ kalla sawfa taalamuun maa kaana lakum ay yushghilakum attafaaxuru biha an taatillah sawfa taalamuuna aaqibata dalika linshigal mu ne déet mu leen doon ñeel ñeelu leen woon ngeen di yittewoo puukarewoo googee puukare àdduna googee jaayante alal jaayante am am man yor naa di ko fësal ak a feeñal ñu dem ba tey fii ñu toll nii ci xeetu puukarewu ak wonewu ma ngoog ñu àgg ci dayo yoo xamante ni nii dayo yu extraordinaire mu ne puukare woo googee warloona doon loo xam ni da leen di yitteel waliis topp seen boroom xel set na ni nag daa ngeen xam mujjanteelu bu yittewoo googee ngeen yittewoo mbiru àdduna waliis topp seen boroom summa kalla sawfa taalamuun summa sawfa taalamuuna aaqibata topp xel set na ni daa ngeen xam bu baax mujjanteel ba finalité ba ci lii ngeen nekk nii di ko dund muy àdduna gi ngeen di dund mu jaral leen lu ne mu jaral leen jaay seen diina mu jaral leen jaay seen ngor xoolal fan yi ñuy wax xeetu doxalin yi ñuy wax muy lu doy waar ñu koy fësal di ko wasaare maa lenn nag xam naa ko ci mooy ne ci jamono yu mujj yi yu bari yoo xamante ni nii tey ñu ngi koy fésal ci yu ñaaw dañuy fexe mu doon loo xam ni dañ naan la ci dëkku jullit la xeewe wala boog ay jullit a ko doon def wala yu ni demee loolee lépp la jaaxal loolu dafa tegu ci benn principe xam nga ban principe la mooy principe bu wa yuridu alladina yattabicuuna alshahawat an tamilu maylan azima waaw ñépp a yam principe bu ñépp loolu ngay dégg jëf yi loolu lay wone dañ dee bëgg woon ni fii kenn baaxu fi waaw usaas bii di jàngale sax day baax baax lu nii rek mais baaxul waaw moo tax ngay dégg ñu yàgg a wax nit ñi naan nekkul ci bu gudd bi yaa ngi ci bu gàtt bi ba loolu gis nga jur na complex mooy ak yasar ci ñenn ñi nga xam ni ay usaas lañ wala dañuy ustaas ustaas lu nga fekk leen ci palaato yi ñuy wane ne nànd nañ ay nàndite lañ ma dugg ci yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla dugg bañ cay dugg taxut nit ñi xam seen diina seen diina du ca waaye dañ leen di jàppe ñoom ay comédien ay jaaxankat lañ leen di jàppe nit ñu sérieux yi te xellu dañuy xam ni ñii wootewu usaas moo fi nekk rek waaw mais ay jaaxankat lañ wallahul mustaan kon gis nga àdduna bi tey ni ko gaañu bëgg a mooñe mooy fii kenn baaxu fi gis nga wolof nag am na lu mu wax fu ndox daan taa bo demé fekk fa tép tép am na ñuy baax ba légui mbax a ngi fi ba légui bu len décourager mbax mi ngi fi yiw mi ngi fi tawhid mi ngi fi sunna mi ngi fi njub mi ngi fi ba légui bu len décourager la tazalu taifatun min ummati ala alxaq zahirin waaw ila qiyami saa ila qiyami saa loolee dañ koy wax mu nekk écran de fumée pour nëbb leen mbaax bu ko defee doo am yittey gëstu ji fa mbaax nekk bu boobaa da ngay doyloo mbon gi ngay gis ne ah kon kat dëkk bi kenn solul yére man du ma sol yére du dégg ngeen ñu leen di wax loolu naan boo demee ci dëkk kenn solu fa yére bul sol yére bañoo sol yére xanaa yaruñu la ci kersa xanaa yaruñu la ci sàng say awra solal yére gis nga yooyu yëpp ay genre teg xel la pour xëcc nit ñi ci mbon fésal mbon dañoo toll ci ordre ordre mondial boo xamante ni nii ordre mondialu mbon la fésal mbon yi gën a ñaaw ci mbon tey ñu ngi koy fésal xool leen coow yooyu ngeen di dégg gis nga lu gën a yi gën a ñaaw ci mbonte tey dañ koy fésal ci loolu lañ toll tey ci loolu lañ toll bu ko defee day nekk genre psychose ku mën a doon yaa ngi xool loo koy xoole lu négatif bëtu mbon nga koy xoole gis nga maanaam tu vois le mal partout lu bon daal fu ne nga koy gis gis nga déggoo leen nga dégg ñu naan waaw ca jàkka ja lañ doon defe nàngam waa dañ leen a betti jàkka ñuy def nàngam ok baar ba nag bettu ñu leen baar ba la ñuy def baar ba nag eh, waa ca daara ja la gis nga yooyu yëpp lam la pour wan na ne ah jàkka ja nga xam ni fa la ñuy nodde di fa julli de gis nga jàkka ja sax moom mucc ca rendez mbaax a ngi am ba léegi njuba ngi am ba léegi aw nit a ngi am ba léegi yoo xamante nii yaabuduuna rabbahum wala yushrikuuna bihi shay'a xam nga li am solo mooy lan nanu am courage bu nu yasar bu ñu complexé bu ñu complexé jóg dox ci mbaax fésal ni dañoo dox ci mbaax nit mën ngaa am jaar-jaar nag mën ngaa am démb moo tax gis nga xool leen li xew tey kuy jóg di jéem a baax sax pour baaxal sa tey lu ñuy def da gis ñu lay wuññil sa démb ils n'ont même pas da ngay ñu lay wuññil sa démb bu ñu lu ñu too sa démb mënuñu faa gis dara bàyyi wuñ la de jaral na leen ñu dem ca armeel ya fa ñu suul say wayjur ñu sulli ko pour wuññi leen gis ngeen àdduna bi tey ni muy doxee mais loolu yëpp bu mu la complexé waaw loolu lépp bu mu la complexé arab yi dañ ne kun ibn man shit waktasib adaba yugnika mahmudahu an nasab laysa alfata man yaqulu kaana abi walakin alfata man yaqulu ha anaza ki nga doon tey loolu mooy li am solo la nga doonoon démb fa nga jaaroon démb loolee lépp bu fekkente ne ki nga doon tey te sa tey gii nekkut ci mbaax amul njëriñ amul njëriñ kon nag bul découragé bul sëngéem bul yaras jógal nga fipp dox ci mbaax jógal nga fipp yëkkati mbaax xam nga fu ñu bëgg a yóbba te daanaka egg nañ ci sax daañu toll foo xamante ni nii nit ñi daañu am complexe kersa wu julli jot ñu jóg julli nodd jóg ñu jóg nodd def jot sax ñu def ko taxaw sa mbokku jullit mu nekk ci jafe-jafe sax àgg foo xamante ni nit ñi dañ koy dañ ci am ak yaras déedéet bu ko defee nag ñoom en retour ñoom yàqkat yu mag yi ñu jël seeni ONG nag ñëw naan leen ñun ñoo leen xettali ñun ñoo leen defal nii ñun ñoo leen defal nii te fekk loola ñuy indi ci ay turu ONG yéen mën ngeen koo def benn benn bu ngeen joxantee loxo waaw bu ngeen joxantee loxo mën ngeen koo defante benn benn loola la gaa ñi seen politique dafa doon politique yoo xamante ni nii dafa occulte dafa sombre dafa lëndëm doxali ñu doy waar lañu mu ne kon topp xel set na ni daa ngeen xam كلا لو تعلمون علم اليقين حقا لو انكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لما انشغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد mu ne dëgg-dëgg bu ngeen xamoon xam ngoo xamante ni nii xamug yaqiin la ci ne yéen ñii seen borom dina leen dekkal te dina leen màndaxe xisaab leen fay leen seeni jëf kon du ngeen doon yitte woo puukare gii puukare woo alal ak njaboot gii ngeen nekk tey maanaam ni nga xam ni tey noonu lañu ñu détourner vision wu àdduna tey ba jël lépp def ko matériel nga xam ni léegi finalement relation yépp ça se construit ci lan ci matérialisme ak ki am daal am am daal mooy misaan bi waaw am am mooy misaan bi mooy nattuwaay bi mooy référence bi critère de référence bi mooy lu mu am ba gis nga gaa ñi daw buur ñoom ñëpp wuti am xoolatuñ jikko yu rafet xoolatuñ diina xoolatuñ benn valeur ci valeur nité li ñuy xool mooy lu mu yor la tarawunna al wallahi la tushaahidunna annaar yowma alqiyaama mu ne giñ naa ko ne di ngeen ne jàkk safara keroog yowma alqiyaamati xoolal aaya bi aaya bi bokk na ci aaya yi nga xamante ni nii day di firnde ci anam goo xam ne anam gu fés la dekki latarawunna aljahim xoola li ci nekk ci ay jumtuwaayu tawkiid summa latarawunnaha ayna alyaqin summa latushahidunnaha mushahadata yaqinin la shakka fihi mu ne topp daa ngeen ko seede seedeg yaqiin boo xam ni sikki sàkk du ca am ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم يسألنكم الله في ذلك اليوم أما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرها من يطبنك برم بجل وعلا دانا لين لاج خيول يمول يندفلون خيول ورغيرم خيول قوم اك ينين تي خيتو خيول خيول دينا مانغوك xéewal yii nga xam ni borom bi jalla wala defal na leen ko te nun àgg nañ ci nañuy toppe àdduna àgg nañ ci fàtte xéewal yi ñu borom bi jalla wala defal xam nga ku fàtte xéewal moom taloo koo sant ak ngoree di daal di dugg gis nga fa ñu àgg te pourtant yaa ngi féey ci ay xéewal xoolal wér-gi-yaram xoolal xéewalu wér-gi-yaram doxantul doxantul hôpital mango doxantul hôpital ci raglu ba nga xol ña fa teud bo paré nga jóge fa jaaral fa nga xamni ni centre de détention yi prison yi nga xool ñañ fa téye bo paré agal ci armeel ya ya nga xol ña fa teud nga ci wat ci sa bop xol xéewal yi la borom bi jàlla wala defal waaye doomu aadama moom toujours plus la bëgg nay yokk rek waaw bu ko defee nag muy fàtte xéewal yu bari yu rëy yu màgg yi ko borom bi jàlla wala defal hmm? seetal loolu doomu aadama nay bàyyi xel bu baax xéewal yi ko wër xéewal yi ko wër ma ngoog mu bañ di mu bañ di xool di peser ci la nga xam ne mooy ay mébétam ya nga xam ne jotagu ci mu ne min fawaidi l ayat xataru tafaaxur waltabaahi bil amwal wal awlaad rëyaayub danger wu puukare wu ma puukare wu ci li nga xamante ni nii moom mooy alal ak njaboot ma jël ko di ko def puukare di ko jaayante nañu xool sunu xew yi nañu xool sunuy daje gis nga col gi nañuy soloo solol nii defee nii boo demee nangam gis nga doxeel nii joxeel lii génneel lii defeel nii subhaanallah alqabru makaanu ziyaaratin suraana ma yantaqilu minhu nnaas ila daari l mu ne bàmmeel de barab la boo xam ni barabu siyaar képp la maanaam foo xamante ni danga fay jaar rek yor ndu xool waaw ci lu gaaw nit ñi dañ fay toxoo jëm ci àllaaxira يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم الذي أنعم به الله عليهم في الدنيا يوم القيامة خيول يبرم بجل وعلا خيول ون جامية دانا لن كلاج خيول بمنا من دون في دل بايي خيل خيول يبرم بدي دفل واو دي كوي ريفيزي دي كوي نفر دي خولات اه سمبرم دي دفل نمالي لي مو ndax sant naa manam focaliser wu ci loolu que la nga xamni dang ko ñak wala la nga xamni ni wala la nga xamni yang koy mébét al insan majbulun ala hubbil mal mune ne doomu aadama nak moom dafa don ko xamanteni ni manam tabi'am moy bëgg alal waaw doomu aadama moom dafa bëgg alal rek xasbunallahu wa ni'mal wakil barki démb rek uh, yàggul dara maa ngi gis mbokk moo xam ni ma nga wone benn nataal xaw ma dañ kaa monteem déet nag waaye daal lam ca bëgg a génne ci njàngale reelu na waaye boo taxawaatee xool ko mooy uh, fi gaa yi di dugalee kiiwu gab yi nga xam ni da ñëw dugal sa carte retiré xaalis waaw ñu ngi ci wéer benn kaan mu ne gis nga góor gi dafa ñëw retiré xaalisam fàtte fi kaan gi mu ne xaalis daal doy na waar gis nga doomu aadama xaalis noonu la wallahul mustaan bu ko defee moo tax diina am solo nag moo tax diina am solo waaw xool leen musiba yi ngeen di dégg yépp boo xoolee fond bi lan la an xaalis géer yi ngeen di dégg ah yàqante der beeg tamante dëmm beeg ah. jukko yu ñaaw yeeg goree di geeg yooyu yëpp xoolal lan mooy nekk ci suuf xaalis moo tax doon naa dégg euh, benn euh, journaliste investigateur euh, boo xam ni nasaraan la mu doon wax naan investigation bu bunt yëpp tëjoo mu ne toppal buntu xaalis nii la ko waxee benn américain mu ne bu bunt yëpp tëjoo toppal buntu xaalis waaw boo ko toppee rek daa for dara bu ko defee kon nu teg fii sunu baaraam ñaan borom bi jàlla wa ala mu defal nu tawfiq defal leen ko defal nu tey taysiir defal leen ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.